Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ça va ci loo modu. man la Modou maa sms maa ngi nekk ba Italie me. actuellement ni ma wax ak yow dama am problem. problème su ma sañoon nag ñu continuer par vocal ndax ma expliqué la mu gën a leer waa maître maa di ma est ce que mën am confiance yow di le continuer de la wax samay problème permettre xam naa ne tamit quinze heures moo jot Sénégal parce que fii nii seize heures moo fi jot presque dix sept heures mais décalage bi une heure de temps lu bëriwul te tey la dimanche xam naa di nga am temps moo tax ma ne xam waxtaan ak yow ya, nii moo tax ma lay ñaan pour que mën a wax man ma waxtaan ak yow ya, si sama problème s'il te plaît. ça va sëñ bi noo def déglu naa say vocal mais da ngeen di xam ni euh, dama yor plus de sept cent messages yoo xam ne duma ko mën a liirandoo foog ma jël sama temps di jël par tuuti tuuti par rapport ak sama liggéey dafay métti pour ma jëlandoo lépp maa ngi jégalu nag bu baax a baax ci yéex a tontu beeg yooyu léegi nag ma lay laaj lan laa mën a def pour yow. merci maître May kontaan naa ci li tontu nii. ça me fait beaucoup de plaisir. ah maître man de mon problème lenn la Moi, mooy que damaa au Sénégal vacance ma gis benn xale mu doon bëgganteel ma je ko indi à fii sama wet Italie mais bi ma ñëwee ba léegi dama ma fenn fu ma nekk de defuñu sax quatre mois man ak sama xarit yi ñëpp waxoon ko indi ya, fi sa jawar parce que jigen jigéenu sénégalais yi ñom bo len fi indi rek dañ lay trahir top blanc yi man li gëna gën a metti mooy que mom famille ñëpp maa leen doon gérer ay frère ñom ñoom ma leen fay ak école di def lépp loolu ma gën a metti ko xam ni yow yoro dara say pap yoro ñu dara say ya yoro ñu dara ah man ma leen jox dépense lepp lo li am ci kër gi man maa koy def boole ko sama famille man musu mon yaakaar ne sax moom mi dina am ngor sax di ma trahir wala di xool beneen góor bu dul man waaw temu faible pauvre te moom du mu nekk Sénégal yëpp nekk tam mu ngi am ay xarit italien yoo xam ni ay tiktok facebook fu nekk lay waxtaan ak ñoom nekk tam moom mu ngi doon waajal loolu man xaw ma ci dara sama xarit yi daan nañ ma wax ne ma bëggul ak sa xaalis la la man man woon gëm loolu parce que li may doon jàppale ay parents dañoo faible pauvre ma jàpp ne peut être loolu kese la mais dama trompé ci moom. Ah, sëñ bi je suis désolée ci li nga ma wax waaye leen bëgg naa nga xam ko du jigéenu yi rek ñooy def loolu defe naa ne loolu ci monde entier jigéen ñëpp dañ koy def. Hmm. Euh, dinaa la xamal leen bul am dara looy regretté ci yóbbu bi nga yóbbu sa jabar ci sa wet man je pense que ni tu as bien fait li nga def noonu la jël sa jabar teg ko ci sawet loolu mooy dëgg te noonu nga def adduna bi jaasoona na trop mais est ce que mën naa laa laaj dara ndax waxtaan nga ak famille ñaareelu question est ce que mën naa xam lan nga ko def da ko saaga wala da nga ko dóor wax ma lan la exactement. am na balaa fàtte wax ne sax jàngam yëpp mën naa ko fay waaw ba ni muy amee bac léegi ñu ànd ñëw fii Italie léegi ma xëy ma ne xanaa dem xoolal ko liggéey war a ko liggéey ma ñëw si gisatu ma ma sama xarit ñu doon àndal fii nii ñoom ñëpp ma laaj leen ñu gis ñu ko xamul décembre biñu genn ni rek bet na ko muy def appel am ben blanc di won yaram yaramam mais moom gisuma bu ma gisee sa dafa tiit moom de déggu sax lak bi fi dëkk bi mais def na lu tuub ba woo waa police ñoo fi indi fi ay problème bu ka def ay crise am def lu ma neex door yi yaram yaramam xote yërëm bu ñu ma kër gi ma foog na fa lay yem nekk moom porté na ma plainte police ma sama xarit ji ma fa nekkuloon Sénégalais yi ñu ma fa nekk ndooloon ñoom ñoo doon jàppale def la tuub ñu génnee ma foofu ma nekk. est-ce que mën nga ma wax ni tu es que sa loxo laalu ko en en plus posé woon naa la benn question sànq te wóyuloo ma ay parents est-ce que wax nga ak ñoom. maître mën naa la waatal ne sama loxo mosu koo laal yooyu yaa ma gën a am sant dëkk bi ñu nekk nii fii nii jigéen ñi doole ñu fi ëpp baat ñoom kenn du leen laal ku leen laal mooy loolu seen parents yi wax naa leen ko mais ñoom ne nañ rafetlu ñu seen doom lu mu def baalu nañ ma def nañ lépp mais man loolu doyo ma satisfaire ma waaw ba pare xam nga ne lii neexul yor sa jabar nekk ak moom fii quatre ñetti yoon kase ngeen def rapport yoon kase boo ko laajee ya boppam day bañ te loolu noonu ngeen xam ngeen wax ah loolu moom grave na de grave na trop sax ndax su fekkee ne ay parents mënuñ ci dara ah mais est ce que mën naa xam exactement léegi lan nga bëgg ma def ko ak yow ndax est ce que tamit mën nga ma wax ndax da nga amoureuse ba léegi ak xale bi maître pour nga jappalé ma xam naa dina métti trop mais dama bëgg nga jappalé sama frère sama sœur yi nekk fi ni pour ñuy tak jabar ñu xol bu baax fi ñuy tak seen tank ba li ma dal bañ leen a dal li ma la mëna wax moy nga dal ta bañ def lenn lo xamni daf lay dugal ci tooxi doona comme ni ma la ko waxé nak du jigéenu sénégalais kese ñooy def loolu defe naa ñi ci monde entier bi yëpp la kon àndal ak dal ak yar balaa ngay rëccu euh, léegi euh, dama bëggoon nga may ma tuuti rek na dafa am yu ma war a def mais après daañu continuer dégg